jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su nag dañu seet si koo xamante ni vraiment kenn du ko présenté ci réew muy lanjang lanjang mi ñu xam mel ni mu ëmma seen mi nga xamante ni vraiment ñoom ñaar mën naa ni junni la ak cinq mille tur bokkul rek waaye ñoo yem li li ñuy jar benn lañu muy kilifaam di magam di encadrement am féete ko fu sori tey ñu fas yéene waxtaan moom lu bare bare par rapport ak mhm. seen làmb démb ji mhm. ndam lu rëy li nga xamante ni am nañ ko taxawaay bi ñu ci am mhm. mais bari na loo xamante ni constaté nañ ci dañ ci bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wél waxtaan bi gën a mën a yaatal waxtaan bi lay ñëw maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waa jili maa ngi lay fay di nuyu aussi waa wasaale làmb yëpp di nuyu sa encadré micro bi àndal hmm. aussi di rafetlu déplacement bi nga déplacé wu aussi fekk ñu fii hmm. di la encouragé aussi te di la ñaanal te hmm. liggéey bi ngeen di liggéey bu rafet la parce que dama lay suivre di ñaan aussi wasaare làmb aussi yegg fépp comme ni ma koy ñaanalee yeneen seen yëpp parce que ay ndaw bu ñuy liggéey ah, kere loo xam ne vraiment ay doomu Sénégal dañ ciy liggéey doo lu dul di leen ñaanal ñu mhm. lay ñaanal di ñaan kilifa gi nga xam ne moom moom lii mhm. di la ñaanal li jeewit nga dem ba am sa yëfi bopp mhm. parce que nag comme li may wax rek borom bigtu mbagg boo xar rek xol ba boutique nga cay fekk magasin nga cay fekk waaw maa ngi lay ñaanal di nuyu samay mbokk di nuyu mbokk Eumeu Sène di nuyu waa Pikine di nuyu waa Mbaaw gi nga xam ne fi la ñuy di nuyu ñëpp ni nga xam ne ñoo ñu jàppale si làmb ji. Mm. di nuyu staffu Tay Shinger bi yëpp commencé ko si président bi barka laa ba si gis neen gën a nekk suuf. Mm. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Hmm. grand dinañ ñëw tuuti mais dañuy delluwaat ginnaaw tuuti. Hmm. parce que dañu gis Eumeu seen jóge ci combat boo xamante ne combat capital la woon muy komba bu rëy. Hmm. combat mu teg titre roi des arènes ñàkk ko ci Modou Lo. jëlaat bombardier bi nga xamante ni dañ dëpp la ñëpp dañ ko fi bàyyi. Modou nga bëreeg moom mu daan la. Modou Lo bëreeg bombardier bombardier daan ko. lan moo tax nga jóge ci défaite boobu ba pare delluwaat ci combat boobu combat bombardier waaw non non loolu dara xam nga tey yàlla day def ni hmm. ñoom mbër yooyu nekk si kaw muy teneer yooyu ngay wax. Hmm. par force dañuy daje seen biir. Hmm. parce que tey xale yi nekk ci suuf di raam di ñëw. bu fekkee ni da ngay raam di ñëw te yegg seegoo wala nga raam bay bëgg a ñëw am lu la baare. mbër mi aussi du jóge si yenn situation yi di la may loxo wóorut. donte gëm nañ suñu bopp ah. mais aussi làmb dafa am réalité. te aussi promoteur bi aussi bi mu ñu woowee. kooku la ñu pour ñooñu la ñu proposé Bombardier la ñu proposé. Hmm. ñu pare aussi pour bëri ak moom. Hmm. parce que nit moom dafa nekkoon roi des arènes. Hmm. bi mu nekkee roi des arènes yàlla dogal ñuy dox combat ak Eumeu Sène. lu bari xew fi. mu jaral ko moom Bombardier en tant que grand frère mu génn wax si télé bi ni moom Eumeu Sène lay bëreel. donte nag nit ñi jaar na fu nekk pour yàq làmp jooju. mais yàlla noppi na démb tey doo di ñëw. moom it aussi mu jël ay responsabilités ni Eumeu Sène laay bëree may ñu sens. Hmm. parce que may ñu laa ko mën a tuddee. parce que boobu moom mooy buuru làmb ji. Hmm. combat ba yàgg lool ak la si xew-xew si. Hmm. beneen promoteur tëggoon ko yëggul. beneen promoteur ñëw bëgg ko tëggaat. dafa am am ci mu insister ni Eumeu Sène day bëree yalla dogal ñu bëreek moom am ci moom ndam. am roi des arènes moo tax ñu dégg roi des ginnaaw bi ñu ko déggee aussi Modou loo suñu naaw la la mbër mm-hmm. comme ni Eumeu nekkee mbër mm-hmm. ñu daje woon mu daan Eumeu Sène mm-hmm. bu nekkee roi des arènes lamb boole waat parce que li nit ñi dul comprendre mooy bàyyiwunu ba Modou loo daanu ci Balla Gaye ñun ñu nekk roi des arènes doog di jël Modou Lo loolu amut suñu combat ak Modou Lo taxaw na te Modou Lo bëriwut Balla Gaye mhm. jox nañ ma avance su Modou Lo te Modou Lo bëriwut ak Balla Gaye mhm. parce que boobu moment boobu bëri moo ñu waroon parce que roi des arènes du da nga koy jël rek nga jël ko meuble ko dugal ko sa biir salle di ko mhm. xool chaque jour amul sens au contraire da nga ci war a xaalis dañ ma proposé xaalis contre Modou Lo mu nekk xaalis boo xam ne mbër mësu ko ko ci làmb mais dañ koy jël. bëreeg Modou Lo comme li ma koy waxee nag ndam moom mbir yàlla suñu borom la. mais lañ ca war a def def nañ ko ci làmb ja ñëwaat Modou Lo amaan ndam. ñu di ko félicité. parce que nag ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lan ndam di génnu Sénégal. Eumeu Sène ni mu jëlee roi bi ci Bombardier noonu la ko Modou Lo jëlee ci moom. suba suñu rakk Ama Baldé mi mu amal combat ñu ngi koy ñaanal mu jël ko ci moom. parce que lu ma gëm la. parce que nit ku ne li nga gëm ngay wax. Hmm. te koy ñaanal suma rakk Ama Baldé. Hmm. te am na interview bu ma mës a tegal mu wax wax bu mel noonu. ñoom hmm. ma euh, journaliste bi ki mel ni yow ni ma. Eumeu Sène ñàkk na roi des arènes est-ce que dina ko dabuwaat ma ne ko waa bu ko làmb boolewaatee ki ko yor. mun na ko dabuwaat. c'est comme même bu ko làmb boolewaatut ki ko yor. te làmb boole ki ko yor ak ay rakam ay rakam mën nañu ko jëlaat ci kaw. parce que moom it roi des arènes bi si kin ko jëlee ñun si suñuy mag la ko jëlee woon. ci seen mag la ko jëlee woon la. takku def ko suñu xel suñu xalaat teg ci suñu bakkan ba jël ko ci moom. Hmm. kon xale yi nekk Pikine nan teg loolu seen bakkan xam ni kii si seen mag la ko jëlee ñoom ñu ñafe ji. Hmm. jël ko si moom. Hmm. Euh, léegi ñu jékki-jékki gis combat bi taxaw na. ñuy dem di dem di dem loolu li wolof naan lool bañ mu am bul ko jàppal bis. effectivement bis ba yegsi na. Mhm. ngeen fas yéene génn. Mhm. dajeeg Bombardier mi nga xamante ni da ngeen a bëri woon ak moom daan ko. Mhm. mu baal ma ci kaddu gi ñu ne Bombardier yeewuwaat ma ci làmb. bëri na ak Balla Gaye 2 daan ko. Eumeu seen jëlaat ko sens bi Eumeu Sène amoon. du ko amaat. yow boobu ci moment boobu lan nga doon xalaat. non aw ci xalaat parce que xam nga tax aw ma ci woon xalaat bu bari. avant li ma waroon di encouragé bombardier yi hmm. di ko ñaanal yàlla aussi yàlla suturaal ko moom nag moo ko famille hmm. parce que nag day nekk koo nekk koo xam ne exemple la ci làmb waaw muy bombardier exemple la ci làmb hmm. ku baax la ku ma naw la man bu dul làmb ji nu am ni mu doxoon suñu diggante damay faral di déggante ak moom téléphone mu nekk nit ku baax benn tàkkusaan ñu boole woon rek nag. Mm-hmm. comme ni ma koy waxee bu jeexee jeex na. Mm-hmm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. maa koy encouragé te ko ñaanal. Mm-hmm. yàlla defal ko jàmm defal ko famille yàlla dogal mu amaat beneen combat yàlla suñu borom yàlla na ko si may ndam. parce que nag nit ku baax la. mais defuñu problème parce que. mbër mu ne. Hmm. yaa sa trésor morom. Hmm. nit ku ne comme ni gars yi di xëyee di jot seen costume def seen lépp wuti seen bureau wuti seen lépp noonu la mbër mi xëyee di dem entraînement te Eumeu Sène nekkul ku làmb di dépassé. Hmm. parce que mbër moo xam ne en général buñ la commune boo nda dëppee micro da wax ne man ñam naa victoire ñam naa défaite. kon mbër moomu du mbër mu ay ay kii di du ko bis di dépassé. Mhm. ba tax na bis mu ñëw bu ne dañ koy jël amee jàpp ko ni ko war a jàppee. def ci mhm. liñ ci war a liggéey ci liñ ci war a liggéey. Mhm. ah te yaakaar naa ne biñ si liggéey liñ si war a liggéey yàlla suñu borom may na ñu daan ci bis boobu. muy ko démb. ah di ñaanaat yàlla rek yeneen combat yi nekk suñu kanam aussi yàlla may ñu ndam rek mais ñun daal ni ma ko gisee tollatuñu fu ñu combat di jaxasee. wala ñuy jël benn combat boo xam ne vraiment daf ñuy dépassé. man tollatuñu ko mais guddi combat bi mm. maanaam suba la combat bi ñu ne suba la combat ci guddi gi nga mm. xam ni nag suba la dañ dëpp gi suba mm. lañ war a dajeek gaynde mbuur gi moment boobu bi ngay gis Eumeu Sène ci guddi gi ci nan nga ko gisee ak état moralam fan la tolloon ci moment non xam nga léegi ci biir sinag da nga ne Eumeu Sène boo ko bomba ñu jël bombal bi bu ko Bombardier yi kiyee daf ko daan mu dem daanaat Balla gay mu ni Bombardier yeewul Bombardier mës ta nelaw ne ak nu ngi koy préparé Bombardier hmm. boo xoolee suñu làmb ju njëkk ji booba titre roi de arènes moo nekk ci boppam hmm. daan Balla Gaye daan Modou Lo hmm. mu seen troisième fois te ba mu daanee Balla Gaye daan Modou Lo dafa def déclaration ñun ñetti booy yi ñu gën a tës si làmb ji laa bëgg a daan waaw léegi nag Eumeu Sène ba mu jàkkaarloo moom dañu ko ñetti booy yooyu nga daan man bokkuma ci ñetti booy yi nga wax ñetteel bee lay jaaxal parce que bokkuma ak ñoom. Mm-hmm. <laughs> yàlla dogal moom la mu waxoon Eumeu Sène wax leen li Eumeu Sène waxoon yàlla dogal lool ñu deux rois des arènes ci ko yàlla dogal mu amaat combat ak Balla Gaye wanewaat boppam. Mm-hmm. ñun na combat ak Balla Gaye bi ñu ko seetaanee dañ see tiile ay leçons. Mm-hmm. waaw non mënul ñàkk parce que yow bu fekkee ni sa adversaire la ngay bëree keneen mu leer ma ni prochain combat ma ngay am. combat boobu daf may intéressé damay xool say entraînement damay xool say combat damay xool lépp. ëmma bi mu seetaanee Balla Gaye ak Bombardier ñu bëre automatiquement moom lan la xalaat ak lan la wax. no xam nga nag nit ku ne. Hmm. ku ne. Hmm. loo wax fii. Hmm. da koy waxaat sa biir bàmmeel. dëgg ku ne loo bi ñu ko seetaanee ba combat bi jeex. dani ba euh, ngi félicité moom si biir waxam dani maa ngi félicité Bombardier. di encouragé Balla Gaye. mais man ni ma liiree combat bi. ma ne ko ah Bombardier def na li war a def de. Balla Gaye def na li mu war a def man waaw mu ne ma mel ni ma gisee combat bi nii Balla dara. Mhm. waaw parce que lu mu lu mu wax la. waaw soo ma laajee ma wax leneen damay nekk naafeq. Mhm. mu ne ma li ma gis nii Balla moo indiwul dara. Mhm. la tax Balla indiwul dara nag xaw ma ko. parce que nag fa mu doon entraîné ak na la wax ni moo ko dal yëpp wax dëgg yàlla leeru ma. waaw mais ku xam Balla Gaye xam ni bala Gaye mu ñëw o top. mën na lu raw li mu wane keroog contre Bombardier parce que nag wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax. arbitre bi sifflé. Eumeu Sène Bombardier ñu bëre wuree ci bëre mhm. première action bi gis nañ Eumeu Sène ñu génn saako yi mhm. mu génn dem mhm. ne daa naanu ndox xam daa sotee ko gàllaajam ak yooyu ñu ci bari nee nañ loolu signe de fatigue la xam nga làmb dafa am ay tegtal làmb dafa doy penku laa jublu dëgg la billaahi wallaahi taalaahi waxoon nañ ni làmb ji ñaari song lay ñaari song barke alxuraan. song bu njëkk bi bu amee ngeen dem jëlee. barke alxuraan waxoon nañu waaw parce que butéel boobu tojtal la. loolu suñu mbiri bopp la. Mhm. parce que danoo làmb. danoo làmb de. Mhm. danoo làmb te danoo am ñu ñu ñaanal si làmb bi donte nag ma seen liggéey na li war a liggéey. Mhm. parce que man mii soo ma ngemboon mënu maa daan Bombardier. déedéet da ngay liggéey li nga war a liggéey. def li nga war a def. ñaan yi doog di complet ñaan yi pour cent la ci. ci làmb tey boo amul doole amul bëre. mu ñu laa ñaanal ñaanal ba nga daan boo kon kon dèjà entraîné na mm-hmm. conscience am tranquille na mm-hmm. mën na bëre kenn du ko wax mm-hmm. moo tax mu jàkkaarloo Bomba Dieng mu ni ko ñamagoo ma xam lu dama xamagoo lu may saf Bomba Dieng ni ko bala ngoon a xam tey ñu ñu takkal ñu séer si si tefes bu na xëyee takkal séer ba ngoon doo am dara mu ne Eumeu Sène dama lay daan ko bi nga waxee loolu tiitoo bëre mun ko wax mun ko bëre mënoo ma see daal Hmm. Eumeu Sène moo dàq bëre Bombardier hmm. non loolu lu senegal yëpp nangu la Bombardier nag mën naa ëpp doole Eumeu Sène ëpp ko dayoo mais bu dee si qualité bëre calcul tic tac hmm. non Eumeu moo dàq bëre Bombardier Eumeu Sène a dàq bëre ci làmb ji ma farak moom a tax mais mais Bombardier ban erreur la def ba Eumeu Sène daan xam nga yaa ngi naan yaa ngi naan yaa ngi naan yaa ngi naan yaa ngi naan bi mu njëkk a jàppante signe de fatigue la wone affaire yooyu mm-hmm. signe de fatigue Eumeu mm-hmm. Sène li mu entraîné si lamb ji Eumeu Sène Bombardier dañ naan mbër mu jàppante ak moom mu daan la mm-hmm. ah, loolu yéen ay yéen da ngeen di dégg loolu waaw Eumeu Sène kan moo jëli Bombardier daa xeex ak moom daw jëli ko jàpp ko ñu bëree damba si saako yi mu takk ko Bombardier jéggi saako yi de Eumeu Sène jéggiwul saako yi de Bombardier jéggi saako yi Eumeu Sène sukk ñaari bëti woo moom comprendre ma la wax hmm. ñu delloo si waat leen ci géew bi mu dem dafay mu del si waatee taxul mu dawal Bombardier hmm. comme lambu calcul la bi mu arrêté Bombardier ba fi ko arrangé dafa dëj ay tànkam dëggal boppam hmm. xeex ak Bombardier daw jàppaat ko yëpp amasee na jëli Bombardier de te gars yi dañ naan boo jàppee si ngem ak bu jàppee sa ngem daan laak yooyu dafa jëli ngem jàmmante moom ndengeñ ko liggéey ba pare xañ Bombardier mu liggéey loolu mën a bëri la parce que fexe ba jàpp Bombardier ba pare nag saa yu la Bombardier bëggee jàpp nga kereel ko ni ko dooma jàpp ba tafu ni nga ko bëgg a tafoo faqat Bombardier te Bombardier lamb ji wutoon jeexee ci carte appui. Hmm. waaw c'est-à-dire bi ko Eumeu Sène faqatee. Hmm, bi boo gisee bi ko Eumeu Sène hmm. ko Eumeu Sène di lonk loxo bi ci bopp. faqatee bu mu bëggee loxo loxoom ci bopp loxo bi daa mbas. loxo Eumeu Sène. Bakke Nabil Moustapha seetaan naa image bi. mais bu loxo bi tegoon fi mu bëgg a tegee Bombardier day julli. parce que loxoom ngi ci kaw ngemb Eumeu Sène. kon moom Bombardier mënul def mu mënul sëpp ñaari carte mais bi ko Eumeu Sène fàqatee loxo ba mooy ak doole da ko Eumeu Sène moo tax mu rëcc moom def quatre appuis mais fàqat ba bu daloon fii si roos bi hmm. loxo boobu Eumeu Sène doon ko lonk nii bu daloon si roos bi hmm. non wax dafa bëri ci bëri la daan Bombardier daanu ko ci ay mbasak ay lii ak laa non dafa bëri moom jàppante ak moom liggéey li mu bëgg a liggéey hmm. te action yi fa am yëpp aussi Eumeu Sène ko def ñu félicité Bombardier nag dëgg yàlla moom li war a def def na ko waaw yàlla nag moo yor ndam di ko jox ko ko neex yàlla démb ñun la àndal Hmm. comme na mu àndee woon ak Bombardier contre hmm. jeexaat foo faree doom doolee fa sam loxo moo ñëwaat foofu rek ne woon ko bee da ngaa foroon doom delloo eh, foraat bii nan hmm. foroon nan ñu ngi ñaan yàlla foraat moom sax daf ne woon yéen am geen seen way bopp way boobu bokkoo leen ci mais ndekee way bi dëggal ngeen seen bopp ba boobu way bi rek waaw kon kon way bi moom xam naa ni na ko si yàlla wuyusee daal lañ si wuyusee waaw moom daal dëggal nañ suñu bop ah way woowu aussi yàlla dimbali waat nañu si ba looloo amaat waaw ñu di ko sant yàlla bu baax nag kenn mënut suñu borom rek a mën ñu gis image boo xamante ne image bu rafet la mhm. mooy Eumeu Sène moment bi mu daanee Bombardier mhm. daa dellu siwaat daw mhm. mais bi mu ñëwee ko daa daw tëb ci kaw Bombardier Bombardier kott ko Eumeu Sène tànk yi laalu suuf mu nekk ci kaw Bombardier image boobu yaakaar naa ba lamb dee lamb ba tey ñu koy doog a gis bi ko gisee nan la la de non lu ma neex la tey luñ ko luñ ko luñ ko luñ ko Eumeu Sène xamul lu bon xamul lu ñaaw lu rafet rek la xam xam maa lay wax léegi si biir science ni la mbër yëpp benn la maa ngi seetaan benn interview bu jabaram di def moom Eumeu Sène hmm. mu ni Bombardier yi day ñëw réunion kër Gris Bordeaux hmm. bu ñëwee day yëkkati xaalis may leen ndeysaan kon ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku si na mooy sa trésor hmm. parce que Eumeu Sène ak Bombardier yi duñ ay noonu ay xarit lan comprendre ma la na ñu dem jaale ji Bombardier kër keroog bi ñëwee jaale si Pape Dia ci kër gi famille bi ñëpp ngi si kër gi ñu waxtaan wax leen war a wax Bombardier daf ñoo jël ñun yóbbu ñu kër këru Mm-hmm. keroog ñoo añandoo ñun ak moom ak famille mm-hmm. ñu waxtaan ba Bombardier fàtte ne moom si dëj la ne te boobu daan nañ ko ñun ñooy roi des arènes. dëgg la daan mu mel ni sax si dëj la ne. Mm-hmm. ba pare Eumeu Sène ba mu daanee Bombardier yi xëy na plongée bi si kawam lañ gis. mais même buñ ko daanee si roi des arènes Eumeu Sène def na acte boo xam ne nii moom la acte bu rafet la. dafa dem xotti Bombardier trois mois sa bassin. ndeysaan boo xam ne fere nañ si deux cent mille wala lu ko xottil Pape Dia magam. Daniel face to face bi mu yëkkati ko jox ko Bombardier hmm. félicité ko ñaanal hmm. yëkkati beneen bi jox Pape Dia hmm. parce que lu rafet la la kon ñun mbëri ñoom mbëri lu rafet rek lañ ko def seen parce que Eumeu bu demee ba lekk ay millions Bombardier tax Bombardier su demee ba jot ay millions Eumeu Sène tax kon ñoom ñaar lu rafet rek ko war seen diggante moo tax image boobu bi mu ko defee aussi image bu Sénégal gépp di rafetlu la te image boobu bokk na si liy jubbanti làmb xamal leen ni ñoom duñu ay noonu te ñun lu baax rek lañ koy conseillé bu géej gi fer lu baax rek Mm-hmm. am na solo actuellement daan ngeen Bombardier yi démb mm-hmm. seen prochain adversaire yaakaar naa su ma jumul Balla Gaye 2 waaw ndax am ngeen contrat ak Balla Gaye 2 mais ñu bari nee nañ combat Eumeu seen ak Tapha Tine combat bu neex la combat jànq la Eumeu mm-hmm. Sène musul bëreeg Tapha Tine est-ce que pare ngeen pour jël Tapha Tine bëreeg moom waaw comme li nga wax rek xam comme ñun dañoo amoon bi ñuy signé contrat bi du Bombardier rek lañ signé woon dañoo signé jot avance Bombardier jot bo avance Balla Gaye kon yaakaar naa ne diggante boobu hmm. ah mënuñu fi jël combat parce que dañoo tënk ci contrat hmm. donte combat Tapha Tine seen Sène combat jànq la mais ñun dañoo nekk ci contrat wu père garçon hmm. mu jox ñaari avance mais père garçon bu ñëwoon indi buuñaa ah, Tapha Tine dugal ko ci biir da ngeen di jëlaat comme ni ngeen jëlee woon bu Balla Gaye bi waaw waxtaan la rek waxtaan la rek bëgg nga père garçon bu paree pour def loolu mi nga xam ne ci contrat am lañ ne waaw waxtaan la rek parce que nag def na fi lépp lu mbëri di def. Hmm. comprendre ba pare ñun dàquñu suñu daje ak moom. Hmm. dàquñu ko parce que nag vainqueur la te ku baax la ku yar la. Hmm. te moom moo mën a may mu seen mu seen moo ko mën a may xaalis. dañuy daje tôt tard dañuy daje. père garçon mi nga xam nag ci contrat am lañ tënku moom. bu ñëwoon bëgg a waxtaan ak ñun. ci lu askan yu bëgg. waaw pare nañ pour toogaat ci table ji waxtaan parce que loolu nag day laajaat toog ak ci ji waxtaan. parce loolu beneen contrat la ci biir contrat bi. jërëjëf am na solo maa ngi lay jaajëfal bu baax maa sant aussi di la gërëm di sant comme ni ma koy waxee sama famille di sant famille Oumou Sène hmm. di sant staff tay bi nga teg sa tànk yàlla jàppale la parce que yaa ngi liggéey liggéey bu rafet aussi hmm. waaw di sant waa wasaare yëpp hmm. wasalaam di ñaanal ñëpp nag di di di di féliciter ñëpp ñi nga xam ne nag ñooñu ñaanal ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak fépp supporter nekk aussi ñu ngi lay sant te di la gërëm waaw jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay